bis bu sedd bu tedd bii ak dund bu sedd bu tedd gii nga xam ne mooy ngën guddi di guddig Rasulullah salallahu alayhi wa sallam nga xam ne sëriñ touba cheikh bamb radiallahu anhu moom danaa wax ne weer wii nu ne moo gën ci weer yi faaqa rabiul awal shuhura bi mawlidi alladi bada mashhura dara wax ni weeru gàmmu moo gën ci weer yi ndax weeru koor ak li muy am am solo ak laylatul qadri guddi ga ca ne bu dul woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp du tubaab daa weer bii nii moo gën ci weer yi ba tax na weer wi doon weer woo ni mu Sëriñ la bu masaa ñëw day bég lool ànd ak mbégte képp ku ko jëkk a wax ne ko weer wi feeñ na dana la neexal neexal bu rëy wax na ne itam mbooleem aajo duñ ko masaa wax ci weer wi da koy daal di faj ba tax na am na ñoo xam ni dañ daa dajale seeni yitte ak seeni aajo ci sëriñ bi ba weer bii ñëw ñu waxaloo ko ko ndax luñ ko wax du ko gànt da koy daal di faj weer wi itam bu masaa ñëw sëriñ bi daa def xasida yoo xam ni at ba at at ci bis bii la ko daa def mooy bisu gàmm da ko gàddu woon gàlloon ko ci boppam ne saa yu ñëwee dana def xasida yoo xam ne da koy def ci tagg yonente bi ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi bu masaa ñëw si da koy gàttandu di ko tatagal wax na ci lu baree bare bari wax na ne raxabtu taadiman bi shahri lmuntaqa عليه تسليما منير الارتقاء بشرت يا ربيع كل ذي التقى يا ظرف نور واصطفاء وانتقاء يا من حبى بالذي لم يخلق نظيرها نظيره وابدا لن يخلق لك اقول مرحبا للمنتقى يا من حبى به واعلى الارتقاء موي ماغي ياتال دي تاتغال دي دالال وير weeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne mbégte la ci képp weer woo xam ne leeru kese la ndax ci la yàlla wàcce ci la yàlla feeñale sayidina muhammad salaa sallam ba tax na maa ngi koy wax kon marhaban ahlan wa sahlan wa sahlan sëñ bi yëmadoon ci loolu danaa sant yàlla ci weer wi wax ne weer wi xéewal la koo xam ni dañ cee war a sant yàlla wax na ci lu bëree bëri alayka ahmadu alladi qad atlaqa kulli li wajhihi wa lastu mumliqa te sëñ tuba itam weer wépp la daa màggal وحنا دعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا mooy weer yëpp lay màggal ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la feeñ bu weer yu masa jëwit danaa wax ne su ma tàyyeelee tàyyeel ga day dañ su ma wéri di woon it feebar ba day daal di wér ngir ne weeru gàmmu ñëw na wax na ci lu bare bari wax na ne yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali adhabta qataan maradi wa kasali mooy weer yi bu ñëwee dootuma tàyyeel dootuma yëg genn mbetteel dootuma yëg benn wéradi itam kon weer wu fonkoon la wu ko ñoroon la itam danaa wax ne biiru weer wi damay nekk ci mbégte mbégteem xol moo xam ni moo raw yi gën a neex ci aduna danaa wax ne aduna li ci gën a neex mooy mooy lem lem googu nag mbégte mi may yëg ci weer wi moo ko raw ci man ci neexit wax na ne wajjaha li mawlidu xayri mursali xalaawatan tuxjidu taamal asali kon weer wu am solo la woo xam ne nii sëriñ bi bu masaa ñëw da ko daa màggal ci anam gii nu koy màggale fii ci Daaru Muxti dañu daa jàngal Quraan di tudd yàlla lu bare bare bare loolu la ci daa digle ak di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di daa defit ay kuréel yoo xam ne dañ ci daa jàng xasida ci Jazbul Quluub Mawaahibu Naafi' ak muqaddimaat ak barsan ji bii nga xam ne moom lañ koy booleel nii ngeen koy jàng fii rek ni ñu koy jànge fii ci Daarul Muxti rek noonu la ko sëñ bi daa defee te itam wax na lu bari si ñi nga xam ne ñooy fonk guddi gi ak di ko dundal wax na ne ñi koy dundal te di ko teg ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi ñoo sallam ñooñee day yàlla dina leen defal yu baree bare bare bokk na ci dañ dugg àjjana bokk na ci seeni xéewal dana yokk bokk na ci dañ deesu leen xisaab ëllëg بكنا تيجي نجيب لك كوفة كون خارج بدر بدر تدري أنت جهاد جا دي شهيد لو نسنج بيوحنا لو نتجس بالقلوب تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة بهزياد المنة لمخلص المعظم فمن يعظم مولد نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا عند الحسن فاحترم من وعظمه فمن يعظم مولد خير البرايا احمد فكشهيد شهد بدرا بغير وهم mooy képp koo xam ni dundal nga ko te teg ko ci sunna si yonte bi te sunna si yonte bi mooy ni ko sëñ bi daa màggale rek te mooy di jàngal quran ak def ay tudd yàlla istighfar mooy astaghfirullah al azim wala laa ilaha illa allah wala allahuma salli ala sayidina muhammad mooy julli ci yonte bi wala xasida goo man ci xasida sëñ bi nga jàng ko nga di ko jàng ci guddi gi wala nga toog rek diglu njàng mi ci boppam te bañ a def lu yàlla aaye bañ a def lu naqar yàlla ba bët set boo ko defee de sëñ faw nga dugg àjjana te see xéewal dana yokk te desu la xisaab ëllëg te da ngay mel ne ku dee ci jihaad loolu nag jar na fonk guddi gi jar na itam di ko dundal bu nag borom guddi gii nag muy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam day jëmm joo xam ni yàllaa ko fonk tànn ko ci biir nit ñi sotti ci moom xeeti xéewal yu bare bare bare bare def ko muy ngën ji doomu aadama maanaam doomu aadama yëpp mooy seen sang mu feeñal ko ci askan wi gën ci askan yi yónni ko ci xarnu bi gën ci xarnu yi tànnal ko dëkk bi gën ci dëkk yi muy awwalu baytin wudi'a linnaas foofee la ko feeñale tànnal ko aw turam mu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam baayam waajuram juróom góor tudd abdullah te jamono yooja ñu doon jaamu xërëm rek ñoo fa nekkoon moon naa tudd abdul uzza masalan waaye yàlla ko tànn mu tudd abdullahi loolu yi xam ngeen ne tànn tànn tànnee ko suñu borom la tabaraka wa taala suñu borom xamal nu ci alquran ne moom ak malayka yi yëpp dañuy maase di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima suñu borom ci boppam xamal nu ci alquran ne moom xamal yonente bi ne ko jéggal naa loolu li nga mas a def li weesu lépp ak li nga defagut te loolu ba mu daataa ñaan yàlla ak njéggal la ko yàlla defal gis ngeen yonente yu bari dañuy jéggalu suñu borom suñu borom doog leen a jéggal waaye moom yàlla da ko jéggal njëkk muy ñaan njéggal mooy li mu ko wax ne ko li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima suñu borom ba tey xamal nañu ci alxuraan ne jox na ko déggu kawsar xam ngeen ne aljana yàlla rek moo ko moom waaye am na wàll bu mu fa jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu day wane fonk bu mu fonk yonent bi sallallahu te mooy li mu wax ne inna ataynaakal kawsar wax na ko sax ci alxuraan ne ko yàlla dina la jox di la jox di la jox ba nga ne doy na ba nga gërëm mooy wala sawfa kër rabbuka fa tarda aaye boobu bi mu wàccee saxaaba yépp dañoo bëgg ndax dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw yàlla dina ko jox di ko jox ba mu ne doy na xam nañ ne moom bala mu wax doy na jullit ñëpp dañoo tabbi ajana bokk na ci liy firndeel fonk gi ko yàlla fonk moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy yàlla dafa dajale yonente yëpp ca azal ne leen sa yéen yonente yii saa yu Muhammad mi feeñee jamono ku ci taseeg moom na nga ko gëm te na ko jàppale yonente yépp ànd ci loolee mu daal di koy wax ci alquran wax ne wa ida xada allahu mithaqa nabiyina lama aataynakum min kitabin wa xikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين moo tax sayidna omar ibnul xataab mas naa wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow day بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم mooy yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay maa ngi lay jote sama ndey sama baay loolu waxin la te noonu la saxaaba yi daa wax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xamal yonte bi ne ko yow de ku yàlla fonk nga ndax yow la yàlla mujj yónni ci yonente yi te bi mu leen di lim yow la jiital ndax dafa wax ne wa idaa axadnaa mina nabiyyiina miisaaqahum wax ne wa minka tàmbalee ci yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam a wax wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa ibni maryam sayidna omar teg ca ne ko yow day ku yàlla fonk nga te xam naa yàlla jox na la cërit ndax ña nekk sawara saa yu yuuxoo bay sàkko ndimbal aka jàmbat dañuy wax ne aka neexoon nu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula loolu bokk na ci liy firndeel fonk gi yàlla fonk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa jël turam ak turu sayyidina muhammad lëkkale ko booy dugg ci lislaam boo ne ashhadu an laa ilaha illa allah boo yemee foofu duggagoo ci lislaam fii ak waxoo ashhadu anna muhammadan rasulullah te loolu fonkeel moo ko waral bu ñuy nodd itam gis nga bu ñu waxee ashhadu an laa ilaha illallah dañuy teg ashhadu anna muhammadan rasulullah même booy taaya ak bu ñuy liqaam booy taaya ci biir julli فاو تدور محمد صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله في القران سونو بروم خامل ني يالا غير مو بغ لا ولا مو جيغل لا دافا ام اب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لول لو ري لا يالا مانونا ديف كوي جيفلانتيك موم جيفلانتيك موم تي لول امول موي جار فن واي دا كو ak ak ak mu bëgg la da ko aj ci nga topp Seydina Muhammad kon jaam boobu jaam bu yàlla fonk la qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim ci alquran gis nañ ba tàyyi yàlla day wax ngeen topp yàlla waaye dajee teg ngeen topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa man yuti'i wa man yuti'i rasula faqad ata'a allah wa ati'u allaha war rasul wax na ko ba tàyyi wa man ya'si allaha wa rasulahu ba ci gëm yàlla sax day wax na ngeen gëm yàlla waaye na gëm muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yooyu yëpp day tegtale fonk gu ko yàlla fonk ak cër bu ko yàlla jox ak sopp bu ko yàlla sopp moom sayidna muhammad sallallahu tagg na ko ba tey ci alquran te yëmut ci loolu yonente yëpp ku ci ne yàlla bu lay woo day jaar saw tur wax ne yaa aadam uskun yaa nuux ihbit yaa ibrahimu arid ya musa inni istafaytuka ya dawudu inna jaalnaaka ya isa bna maryam ya ya zakariya ya yaxya day jaar di leen woo ci seen tur waaye seydina muhammad moom mësu koo woo ci turam faw fu koy woo da jiital ak màggal mooy yónnante gi da wax ne ko yaa ayuha nabiyu xasbukallah yow mi yàlla yónni day yàlla doy na la sëkk yaa ayuha rasul laa yaxzunka alladina yusaaricuuna fi lkufr yow yonent bi yàlla bi ñii daw wuti ak kéefam bu la naqari mukk loolu rek lay waxee moom yaa ayyuhal muddathir qum fa andir yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila fu mu tuddee turam rek da doon li yeneen i wax ba tudd ko waaye fu mu ko te te mbir wax ji da nga gis mu boole ci yonent gi ak lu koy wane teraanga ji ko teral muy tànn gi ko tànn ci biir nit ñi yëmut ci loolu yonent bu ma sa ñëw jamono da nga wax ne kat am na yonente bu bu war a ñëw sama ginnaaw te mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci ki mujj ci njëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu sayyidina isa suñu borom mu net li wax ne wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ya ismuhu ahmad nga xam dafa tudd aw turam wan leen ne mooy ñëw sama ginnaaw yonente yépp nag ñoo ko daa def njëkk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk noonu suñu borom xamal nañu ne képp ku ay bàkkaar sonal na nga dem fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo demee fo moom jéggalu yàlla moom mu jéggalu la yàlla yàlla la daal di jéggal fa saase du ci dul benn sart loolu lu rëy la ndax sunu borom ni ma ko waxee mas ne jëflanteeg moom ci dul benn benn fenn fu ñuy jaaraat waaye mu ne jaam bii bu ngeen ñëwee fii moom jéggalu mu ma jéggal leen mooy walaw annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfaru llaha wastaghfara lahum rasul la wajadu llaha tawwaban rahima suñu borom ci boppam it moo jàngale teggin yi ñu war a ànd moom moo wax moo wax saxaaba yi ne leen bu ko kenn jooru di ko wax aw turam moom kese laa tajaalu duaa rasuli baynakum ka duaa baadikum baadam bu ko kenn wax muhammad kese da ngeen wax yaa rasulallah yaa nabiyallah yaa habiballah noonu la ko saxaaba yi doon doon woowee waaye kenn sañu koo jekkee ko rek wax turam moom kese ci duut ak màggal yooyu suñu borom ci wax na wax na saxaaba yi ne leen bu kenn yëkkati sax kàddoom fi kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi te loolu da leen wax ne ku ko ciy def an taxbata amaalukum wa antum laa tashuruna mooy seen jëf yi ngeen daa jëf mooy yàq te du ngeen ko yëg loolu kon lu rëy la te day tegtale fonkeel gu yàlla fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir alxuraan bu seetloo saa yu yéefar yi waxee baat bu ñaaw yonent bi yàllaa koy tontu. bañ waxee ne kii ab shaa'ir la mooy waxkat la bu mën a way rek di wax yàlla moo wàcce alquran wax ne maa allamnaahu shi'ra kii du waykat tontul ko keroog ba yéefar yi waxee ne kii kaahin la mooy ab njabarkat yàlla moo wàcce aaya tontul ko wax ne ko wala bi qawli kaahin ne du am njabarkat bañ waxee ne ku réer la ku génnu xeet yàlla dafa wàcce aaya wax ne maa dalla saaxibukum bañ waxee ne xel mee dama la jégal ci baat bi mooy li ñu wax ku nitoo diku dafa wax ne maa saaxibukum bi majnun ba ñu waxee ne innama yuallimuhu bashar dafa wax ne lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi ajami wa hada lisaanun arabiyu mubin kon yàlla moo féetewoo lu ñu wax yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu tontul ko saa yu amee lum lu mu dogal ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne jàngalee tax mu jaarle ko ci moom ngir bëgg a jàngal jullit ñi ak nit ñi muy lu mel ne njuumte te aajo mu yedd ko foofee gis ngeen bu koy yedd da cay jiital ne ko jéggal naa la ba noppi doo ko wax na ne ko lu tax nga def nangam afallahu anka lima adinta lahum kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yàlla fonk la saxaaba yi jamononteeg moom it noonu lañ ko fonke woon gis ngeen saxaaba yi ci jamonoom daawuñu nangoo jug fi moom waxtu wu ne dañuy bëgg di toog ak moom waaye buñ masaa toog moom usama tuddu sharif dafa wax ne boo leen fekkee ci kanam yoon bi ñoom saxaaba yi dañuy mel ne nit ñu picc tong ci seen bopp duñ yëngatu duñ raf te itam duñ bëgg a jug fi moom ba alxuraan ci pama moo mujj wàcc xamaleen ne kat fa ida taintum fantashiru bu ngeen seen soxla jeexee na ngeen dug nag may ko mu dal waaye ñoom daw ñu bëgg a jóge fi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam am na kenn saxaaba yi commencé ñëw ci yonte bi fekk dafa dem këram ñibbi xelam muy maanaam muñ muñ mënut a muñ yonent bi mu ñëw fi moom ne ko yow ya rasul allah wallahi innaka la ahabu ilaya min nafsi wa innaka la ahabu ilaya min ahli wa mali wa ahabu ilaya min waladi wa inni la akunu fi lbeyti fa adkuruka فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك موي يو يونتبي غيجنا تي يالا ني يا ما غنال سا بوب غيجنا تي يالا ني يا ما غنال كون صحابه يي نيما كو خي نون لي بيغون يونتبي صلى الله عليه وسلم مودي غنال بوبام صحابه بي لون لا كو خني غيجنا تي يالا يا ما غنال سا بوب يا ما غنال سامي نجابوت اك سما علال اك سامي دوم te bu ma nekkee ca kër ga dund ma la mën a muñ ba bu ma la fàttali ko du ma bëgg lu may ñëw waaye nag li ma métti mooy yow man xëyaam bu ñu fa demee ba dugg aljana man ngaa dem ca daraja yi gën a kawe te man fa may ne mën naa bañ a bokk ak moom bu ko defee nag bu ko defee nag duñ mën a gisee quoi loolu daal mooy li ma naqari yonte bi tontu ko dara ba aaya bi wàcc wax ne wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa mooy ñii topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di topp yàlla tey bëgg ko bu wér ñooñu ñoom moom ñooy bokk fuñ ne kon noonu lañ ko bëggoon ne ko noonu sunu ginnaaw waxtu wi mayewut lu ëpp li ñu doon waxtaane mën nañu wax rek ne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moom it noonu yi la bëgge woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ndax bu ñu wax yonent bi bëgg yonent bi sax mën nañ ne moom mu ne su ta gis ku ko ci féete kaw dundam gépp da koo joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ngeen yonent bi moo daa wax ne sama ginnaaw am na ñoo xam ni dana ñëw te ñoo ma gën a bëgg ci li yàlla bind Sëñ Tuubaa nag mën nañ ne ca ñooñee la bokk te mooy seenu sang sax nag ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa da koo jaraloon adduna sépp dara wax ne bu ñu ko dajale woon jox ko ko gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko gënal waxtu wu ne itam danaa wax ni adduna benn bànneex moo fi am te mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammadun si zinatu dunya wa laddatuha danaa wax itam ni bëgg yonte bi sallallahu moom mooy sama diine ci boppam diini ibadatu ilahi naasi bi xubbi muxtaari min unaasi loolu wax na ci lu bare bare bare wax na itam ni benn xemem teef da am benn bëgg-bëgg da am ci adduna تي موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا المصطفى خير ورا خردي في كل شيء وما يهباه اباه لولو واخنا بو تي تام ني بو وير بو اك وير دي دوجي يارامم ين سافر لام تي موي يوري النبي صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي دا واخني سيدنا محمد موي ويتلو خلام موي مبتيم موي ليرو خلام دي ليرو اي تيرم نوني لا ko don waxe gis ngeen xasida yi mu way ak lim ko tagg lépp moom at mi da ko séddale woon ñaari xaaj juróom benn weer yi day tagg yonente bi juróom benn weer yi ci des muy julli ci moom sallallahu alayhi wa sallama ba àgg ci wax ne bi man bi xubbihi nasitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla mooy bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci mu fàtte mbooleem luy alali adduna ak mboolem luy xew-xew yi adduna yi ak bànneex yi adduna yi ak warukaay yeeg yu rafet yeeg alal yeeg lépp da ko fàtte ngir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba àgg ci wax ne xariqtu fi baxri mahabbati rasul mooy dafa lab ci géeju bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax sax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy farataam di naafilaam di léppam muhammadun du wax ne wasilati wa jannati محمد صلى الله عليه بسلام سمدي ak wasilati wa junnati wa jannati faridati nafilati wa sunnati mooy sama farata di sama nafila di sama sunna sama lépp mooy yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon bis bu mel nii buñ ci accès nuy taalibe sëriñ bi yenn na ci noonu fonk ko rawatina bërëb bi ñu ne muy Daaru Muxti nga xam ne borom Daaru Muxti moom sëñ bee ko digaloon ay bis gu ne ñuy dundal guddi gi fii muy guddi altine gi ngeen xam ni muy guddi mawlidu nabi te ñu wutal ko bërëb boo xam ni loolu rek moo ko tax a jóg muy dundal guddi gi muy di bii ngeen xam ni yemul ci loolu bu gàmm gi ñëwee dañ koy gàttanu comme niñ ko def démb màggal ko bis bi gunge ko itam loolu lañ ko baaxoo def fii te loolu seen seen sëñ Tuubaa ci boppam moo ko digaloon sëñ borom Daaru Muxti mu daa ko def ci dundam ànd ko njaboot yëpp fonkoon ko lool nag loole moo wéy ba tey ji ñi ngi ñaan yàlla defal nu ci tawfeex te defal nu ci lu kawe jot te mboolem ñaan yëpp yàlla nangu ko te taas nu ci barkeb guddi gi ak borom guddi gi te mboolem yi ñu ci wax yëpp yàlla nañ dajeeg moom ci daraja Cheikh Ahmadou Bamba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.